ak initiative bi nga xamante ne sama mag sama grand frère moo ko xalaat andi ko teg ko ci kaw taabal bi ñu waxtaan ñu waxtaan ci loolu nag amul lu muy wone lu dul bëgg bëgg bi nga xamante ne moo ngi koy nekk ci lu baax di ko ci encouragé bu baax a baax di ko ñaanal di ko félicité tamit bu baax a baax di ko ñaanal surtout tamit domaine bi nga xamante ne moom ci yëngu yàlla defaral ko ci yiw ak sutura ak leeraange tamit ci suñu Sénégal am na ñu bëri ñu ñu am ay talent ñu mën ko waree moo waraloon tey ñu defal ñu def kii bi nii concours bi euh, pour wane ñu nekk Sénégal ñoo xam te ne ñu mu sax chance boobu noonu ñëpp xam nañ ñëpp di leen déglu mm-hmm. mooy waa Sénégal comme dañ nekk ci weer bu tedd tamit ñëpp bëggal seen xool ci tar yu neex yi ñu yu ñu nar a tarit nii di ñëw xam na ni gars yi déglu bu baax gars yi laaj volume kon foog de foog ngay wax bu baax de <laughs> léegi yow daf daf mel na nga tànn tànn nañ ñi ñu war a jàll tey nii ba pare léegi yow dañuy choisir ñan choisir wala sax yow est-ce que yow di nga mën a ajouter directement ñi war a jàll. ma xool ndax dinaa ko. wala nga yónnee ma seen euh, seen seen seen Instagram léegi ni ma ajouter leen. seen Instagram ah. voilà comme ça nga te kenn bu jàllee comme sama live lañ nekk nii léegi kenn bu jàllee man maa koy woo. mu jàll ok mu pare su ma ko woowee mu jàll. après moom bu wax bu taree ba pare après ñu woowaat la ñu waxtaan ci tari bi mu tari. bu soobee suñu borom incha allahu rabbi. léegi yow nee ko seetaanee sànq dama ni lii montage la xam <laughs> nañu yaa indi ni ma du montage macha allah. ndeysaan man ko kon gars yi dañ leen jàllale bu ko defee ñëw ñëw rek. waaw euh, déglu leen. bu ko defee ngeen digal mbokk yi ci alxuraan. pare ngeen tàngal ngeen baat bu baax. waaw waaw ayca <laughs> bisimilah kon ñu ngi leen di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 أدبر وتولى وجمع فأوى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين صدق الله العظيم ما شاء الله buñ ci yokkoon tuuti rek ma jooy. wax dëgg yàlla sang yi kontaan nañ trop. alhamdulilah alhamdulilah xol yëpp tooy nañ. xam naa dama leen bàyyi ak Idrissa. non kii kay macha allah sama gars yi <laughs> xool fees na de kontaan naa de merci beaucoup. alhamdulilah di dolli di dolli sant yàlla ba mu ñu mayee chance ñu am ay parents yi ñu teel a dugal daara. waaw ñun nii rek lañ leen mën fayee fu ñu dem représenter yar bi ñuy jox. ban daara ngeen jàngee. Mm, daara Ibrahima Khalil lañ jànge mu ngi woon parcelle unité treize mais léegi dafa dafa tuxu mu ngi ngaam. yéen ñoo ngi dëkkee fan yéen. ñun Ouest Foire lañ dëkk. sama kër sama ko ñu papa la de sama papa foofu la <laughs> yéen yéen ñëpp ban at ngeen wàccee kii kaamil bi voilà hmm, ñun ma xool ba ñuy am cinq ans lañ dugg daara ñu ngi judd mille neuf cent quatre-vingt-quinze le vingt-quatre décembre le vingt-quatre décembre macha allah ah ma ne xale yu ndaw ngeen waaw ba tey na <laughs> dañoo dañoo mbay ñoo ngi lay ziar ñu delloo ziar naka naka naka weeru koor bi ça va tranquille si jàmm bàyyi si jàmm rek. ñoo ngi si jàmm bu baax alhamdulilah Ficha moo ne ñu dugal la gars yi ñu lay xaar ci tari bi. <laughs> waaye ziar ñëpp. <laughs> kii Bamba Bamba kii. <laughs> gars yi neen nga may ñu benn. bu benn benn la. nga taril ñu benn saar rek loo mën rek. ah mun naa leen waxal Fatiha xanaa bu baax. nga xamante ne mooy bi nga xamante ne moom foofu ngay commencé. yow yow yaa ngi suivre direct bi suivre ko tey. non mais suivre ma ko vite la duggoon sànq gis la après dama génnaatoon quoi. mais vraiment suivre ma ko. gars yi tari nañ fi affaire yu neex affaire bu neex. waa gis naa ñaari bi may tombe ñaari jumeaux yi laa tombé quoi bi ñu bi ñu jàng noonu. non ñooñu moom tuuti en fait en fait ñaari booy xam naa leen quoi. dëgg la dëgg la. dëgg la jàng nañ lu lu neex daal waaw. sëñ Mbaye maa ngi lay ziar bu baax. ñu lay delloo ziar sëñ bi waa lépp jàmm rek. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. ba naafile nga ba pare. waaw naafile naa de. macha allah léegi dañu bëggoon. Ah. gars yi nee nga tari Fatiha bi gars yi public bi public bi nee na nga tari Fatiha. téléphone tax na de. <laughs> aja bismillah. waaw bismillah. auzu billahi min asheytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. alamin. arrahmaani rahim. maliki yawmi diini. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdina siraatal mustaqim. siraatal lazina an'amta alayhim. xayrin maxtubi alayhim wala daalin amin macha allah boobu moom boobu moom Oustaz Mohamed noteel ñu ko <laughs> yore mel ni yaay yaay jël péere concours bi yaa koy jël waaw mais foofu foofu moom loolu moom moom la ñuy jiital chaque jour xam nga donc kon nag euh, lu am solo la commentaire bi gars yi kontaan nañ waaw lu am solo la waaw mais jotaay bi jotaay bi nice na lool dëgg la dëgg la. ah sa waay war na ma si jox benn man moom benn spécial ma jël ko man tam ah. ñu jox la sida. waaw. léegi xool bu trois jours yi jàllee après yow jël. ah. naa la boole saa waay incha neex ma génne yeneen sax. waaw ah, <laughs> comme ça ñi amul change jàll si man nañ jàll si yow. waaw incha allah. incha allah waaw mais kontaan naa booy jaajëf. waaw mais rafet na bu wér. barke duut di nga jàng de. <laughs> saa yi jàng de. may bu sew de. ah. bu sew wala tey wii wii non la. bu sew non man man moom xam naa moom. xam naa laa ci ay lan laay lan laay def ma damay teg sama benn pa bi jàng mooy déglu parfois ma ci topp loolu daal laa mais jàng moom ma jàng fii yi waxuma la ay duñ ma zéro de dañ may mooy ay mooy lañ may yokk. <laughs> boobu day baax ba léegi day baax de. ii ay mooy lañ may jox lu leer laa la wax. sëñ Doudou. naka la. waaw sant baay yaa am jàmm. alhamdulilah mais yaa ngi déglu gaay waaw maa ngi doon suivre maa ngi doon suivre pourtant jumeau loo yi noonu nga kii noonu. ñoom ñoo may jàngal alxuraan sax. déedéet kay. bilaay ñoom ñoo may jàngal de ñoo ñëw ba fii di ma jox cours. samay xarit lañ. non samay xarit lañ ay gars yu baax le non gars yi de. non mën nañ jàng de te début bi ba ñuy ñëw di ma jàngal dañuy commencé jékki-jékki rek commencé neexal ma ne ko dafa nànk lii mënu ma ko def. dégg déggal Momo Momo nee na nga jàng. Momo ban. <laughs> Momo. Parisiens, je vous salue tous je vous salue. on se on se revoit bientôt incha allah. wala Suyuti. <laughs> ah ñu woo suñu suñu jury bi ñu xool lu mu lu mu xalaat si affaire yi jury suivre nga leen de. suivre naa leen waaw déglu naa leen. <laughs> macha allah rafet na trop neex na tamit. macha allah. voilà euh, te en plus tamit jàng yi tamit yi nga xamante ne mooy ñëw. Mm-hmm. ñoom ñoom ci ñoom dañoo participer wala. waaw waaw ci ñi participer tey si. voilà bu bu nekkee ñoom dañoo participer ku nekk dafa war a jàng à part. ah d'accord. ku nekk mu jàng à part. kon ñoom foog ñu ñëwaat suba. foog foog ñu ñëwaat suba. incha allah ñoom ñoom na lañ tuddati. Euh, c'est les jumeaux naa la yónnee seen Instagram à pare. ay ah. jumeaux kenn ki mi ngi tudd Idi sax sama turandoo la. Mhm. léegi suba ñoom dinañ ñëwaat ku nekk daal day tari à part quoi ñu jugé leen ku nekk ñu jàng ñëpp après nañ leen jugé live bi bu paree dinañ jëlaat vidéo yi déglu ko par benn benn. Mhm.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 وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب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 قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله